asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ne ñëpp mbokk yi yëpp rawatina sama sëriñ sama wasila borom baatu baatin bi borom allahu muhammad te muy dëgg macha allah ah mooy woote ci bësam boobu nag bés bi nga xamante ne mu ngi xaar taalibe yëpp ak fu nekk ñii ñu ngi Europe ah ñii ñu ngi Gambie ñii ñu ngi fu ne mu ngi oo di oo ñëpp ci baa ngi oo ñëpp ci bësam boobu macha allah. fas yéene nag teeru ganam yi fas yéene toppatoo ganam yi ah fas yéene teral ganam yi ndax lu baax rek la xam te du ko def di woote ci bésu bésam bu màgg boobu di le 4 mars sëñ baa ngi oo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwul kenn képp koy wax ashadu baa ngi lay xaar le 4 mars ndax bës boobu mooy bésam macha allah mu ngi oo ñëpp ku ñëw di gis loo mësuta gis oo na nit oo na jinne oo na ñépp kilifa bu mag képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah di oo tam sunu mbokku chrétien yi waaw waaw mu oo mbokku chrétien yi mu di muy oo mbokku bëpp ëtt diine mu ngi lay woo bàyyiwul kenn kenn kenn taalibe yépp mu ngi ànd ak taalibe yi ñëpp ñu ngi koy xaar ci bés boobu bés bu màgg boobu macha allah yal na si yal si yegg si bismillahi pare ci si alhamdulilahi rabbil alamina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man la Astou Sow Moulé di nuyu bu baax di allah di jiital suñu sëriñ suñu wasila alaaji Thierno Moule Sow koy nuyu bu baax di ko ziyaar di ko jox ci waayam macha allah di njabootam bi yëpp macha allah di naan nag suñu sang bi woote na suñu sëriñ bi woote na macha allah le 4 mars na ñëpp jóg taxaw takk ba dëgër dem wuy si sang bi macha allah képp ku fa ñëw macha allah sa ajo day faju macha allah le 4 mars inauguration clinique bi ziar bi macha allah. alaaji Thierno Moule Sow woote na moo fi def li kenn deful wane fi li kenn wanewul macha allah Seydi Sow asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa international suma mbokki taalube yi man la seen mbokki taalube alaaji Touré Moulay Angleterre ah, di leen nuyu di leen ziare di jiital ci nuyoo ak ziare bi suñ alif général suñ missionnaire bi suñ kilifa gi alhaji Thierno Moulay Sow ñu ko bu ba a baax a baax di ko jox wàccu waayam macha allah di ko masawu coono ah di ko ñaanal yàlla fan bu guddaa wér gu yaram ak kattan gu bari am nañu ko yàlla aaral sàmmal ñu ko moom ak jobootam gi yëpp musal leen ci mboolem luy lor doomu aadama yàlla musal leen ci mboolem pexeem noonu ak pexeem seytaane mboolem defee ak naa feexa musiba ak bala ak fitna ak àdduna yàlla may leen mujj rafet ci daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke njëti turam yu yi ba ci trois millions yi amin yaa rabbi di doole ñaanal yàlla yàlla yokka xam-xamam yokka kàttan gi yokka maxaama gi yokka martaba gi yokka baatin gi yokka leer gi yokka daraja gi yokka sutura gi yal nañu ko doole ndam si liggéeyam bi doole oyofal teñ bi ci ko am yal nañu ko yàlla aral sàmmal ñu ko si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak si barke ñetti turam yu yi ba ci yi nuyu nañ suñu yaay a jaratu Mariama Camara nuyu nañ eh, la reine Sow ak soxna eh, Umu ak eh, macha allah baby prince ñu gën a ziare bu baax a baax a baax a baax jox seen wàccuwaay di leen doole ñaanal yàlla si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, di am bégte lool di def vidéo bi di bokk di ànd di ziare suñu sëriñ macha allah di doole yeesal suñu jébal macha allah di ànd ak moom ci bés bi di tey eh, ñuy war a ubbi entreprise bu bees bi di clinique bi lim jënd pour jaami yàlla yi macha allah jël million yu bari dugal ko fa ndeysaan suñ seen ñu doon amoon lii borom xewal yërmande gi borom kurus yi or bi macha allah ah moom de ñu mun lii si àdduna bi bari nañu waaye ah pour def ko jafe te suñ sëriñ nag. ala na yoon bi kon nag nit ñi war nañoo roy si moom macha allah xalif général lépp pour jaami yàlla yi jël million yu bari defar clinique comme li ñooy wax rek bul xaar pour seet lu sa lu la sa réew defal xoolal yow li nga mun a defal sa réew te moom loolu la def liggéeyal na réewam de macha allah di liggéeyal diine islam bi taxawu jaami macha allah ah ñu dee ñu yee yàlla bu bi bam ñu booleek moom. ndaxte ku mel ni moom daa jafe lool waaw am say million xaalis yu bari jël lépp teel a ko jaami yàlla yi loolu ñu ko mun bariwut de te ñu ko am bari nañ waaye jëf ko jafe macha allahu waaw bu doon fajkat yi yëpp def nañ ni moom wallahi ñu bari noppaleku kon nag war nañoo roy si moom ñu ngi am bégte lool di ànd ak moom si lii bés bi te moom liggéey bu noobul lay def nii macha allahu waaw li moo def daal jihaad fi sabilillah waaw mboolem julit wala loo toog di xaar sa ñuy la cee waaw daw ñëw bokk ànd ak moom si lii ñun dee sawar nañ te ñu ngi ànd ak moom dootuñu bàyyi jàpp nañ dootuñu bàyyi ñun ak moom la macha allahu la xalif général wallahi am nañ bégte lool di sant yàlla buur bi ba mu ñu la indilee macha allahu doon yërmande si bani aadama ah ñu dee ñu ngi sant yàlla bu bi bam ñu tegee si sa loxo yu tedd yi macha allah wallahi ñun amuñ sa fay gannaaw di la bàyyee yàlla yàlla mi am sa fay yal nañu la yàlla fayal ndaxte ah yow moom sa lépp pour jaami yàlla yi la rek la suñu borom da la teral ba pare te lim la teral yaa ngi ko jël ko si jaamoo macha allah waaw ndaxte ñu ko am bari nañ waaye ñoom ñu ngi ko jël di si jagar di si eh, liggéey seen àdduna yow nag moom da ko jël di si. jaamu suñ borom macha allah kon nag kontaan nañ lool ñun taalibe yëpp a ñu ngi la bégee di la safoo di la ndamoo di la tiitaroo saa yu nekk ndaxte ah am sëriñ bu mel ni yow daa jafe ci jamono ji ñu nekk wallahi moo tax fu ñu toog ñu ngi la tiitaroo macha allah di ñaan yàlla buur bi bàyyi ñoog yow ba janaatul firdaws yàlla musal ñu si mboolem luy tax doomu aadama di war doomu adama waaw jàpp nañ dootuñu bàyyi ñu nag yow la wallahi kontaan nañ bu baax a baax a baax ndaxte dang ñu sigil lii nga def nii ah ñun mulay mulay yi nga sigil macha allah suñ sëriñ ubbi clinique def ci million yu bari xaaruloo government bi defal la ko macha allah yaa jël sa xaalis si boppa def ko ci waaw loolu ñun dang ñu sigil bu baax a baax ñu la sant di la gërëm am bégte lool macha allah wallahi kon nag suñ sëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu man la sa taalibe Alaaji Touré mu lay Angleterre Daarulahi international ci kaw ci kanam si lu baax rek jëriñ moom ku la séntu ci gannaaw moo ca nara des waaye yaa nga ca kanam kon nag jëri ngeen jëf asalaamaaleykum ah sawkule jeel boroom nag ak meew kan moo woote Alaaji Thierno Moulé Sow boroom kun fa yakun boroom bëtu Allahu Muhammad moo woote Alaaji Cerno dafa woote bis bu rëy bis bu màgg di ca woo bépp mbokkum taalibe rek Cerno Moulay Sow moom lay woo bàyyiwul junne bàyyiwul rab bàyyiwul nit képp koo xamante ni soppe Cerno Moulay nga rek woo na ci bis boobu Alaaji Cerno nee na suuru bis boobu képp ku teg sa tànk ca clinique ba rek sa ajo faju na kan moo koy wuute ah bokkuma ci dinaa dem képp ku taq si man di nga dem ci Thierno Moule Sow sa sax faju ah alaaj Thierno Moule Sow waxee rek nit ñi gëm ko yaa jubóog suñu borom loo ñaan yàlla na waaw alaaji Thierno yaa ju bégal Sénégal bis boobu. asalaamaaleykum sama mbokki taalibe Moule Moule yi mbokku àddina maa ngi leen di nuyu di leen siyaar suñu suñu xalifa alaaj mi nga xam ne ba mu baaxee ba léegi baax lañu xam si moom ah, mu woote nag bés bu rëy. bees boo xam ne ni bésu diine la ah, woo ci àddina yépp mu ngi woo ñépp suñu mbokki àddina yépp ñu ngi leen di woo ci bésam bi bés bi rek la am bés bi nga xam ne siyaar la ah, mu defar nag immeuble boo xam ne macha allah ah, immeuble boo xam ne nii dane jaamu yàlla yee tax mu defar ko defar clinique boo xam ne macha allah suñu sëriñ kenn amu fayam duñ koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram so mashallah yokk ba yëg ko nag ndax lu ne defal nga ñu ko ak immeuble bii nga defar pour asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kër daaru lay kër yàlla kër yonante bi kër seydna muhammad salaam salaam kër Thierno Moule Sow macha allah sama sëriñ sama wasila alhaji Thierno Moule Sow suñu sëriñ macha allah suñuy soppe macha allah waliw si biir wi xalifa général de jinne kulli médecine traditionnelle borom botu allahu yi borom bintiyaani koni càmmoni koni debaka borom jini bay sëriñ yi macha allah soo ku la jëri allah man sa taalibe Fama Moule Sow nekk fii si daarullahi international nekk si France Guyane française macha allah di la ñaanal jàmm si bés bi bés bu mag bi macha allah mooy suñu bés ñun mule mule yi nit yi jinne yi allah macha allah si ziar bi si ouverture clinique bi macha allah suñu clinique bi macha allah di la ñaanal sow pule jër yalla na yàlla may cent ans sans ordonnance macha allah yokko sa leer yokko sa martaba macha allah may lu atu jini macha allah kontante ak mbégte suñu sëriñ ñun ak yow ba aljanna firdawsi macha allah dañu kontaan lu la yàlla may lu yàlla def si yow di si njariñoo àdduna yëpp si macha allah ak mbégte macha suñu sëriñ suñu xalif macha allah di nuy madame Sow la reine di ko sant di ko gërëm di ko ñaan yàlla gudd fan taw feex di sakku ñaan macha allah cent ans sans ordonnance di nuyu prince Mole di ko sant di ko gërëm di ko ñaan yàlla gudd fan taw feex macha allah cent ans macha allah suñu sëriñ suñu soppe macha allah Fuuti Riwa di nuyu macha suñu yaay boy soxna Aja Mariama Kamara di ko sant di ko gërëm di ko ñaan gudd fan taw feex macha di sakku ñaan. di nuy soxna ummi di ko sant di ko gërëm di ko ñaan yàlla gudd fan tawfeex di sakku ñaan di nuy macha allah membre bureau bi macha allah macha allah di nuy mule mule yëpp su mule mi rek demee joom di nuy sama tonton Fabakary Sonko mule di nuy sama tonton Gala Sow mule di nuy sama tonton Cheikh Oumar di nuy sama tonton Alaji Touré di nuy sama tonton Youssouf Thiaw di nuy sama doom Digel Sow mule di nuy macha allah sama tante Ndiogolo di nuy katibari mule macha allah di nuy ñaame soirée mule di nuy mule mule yëpp nit yi jinne mooy daarulaay international national Gambia macha allah kontaan rek di nuy daarulaay macha allah ah, national macha allah jowlin yëpp su ma limee rek damay macha allah sama doom yi sama tonton yi sama yaay yi sama sœur sama doom yi di leen ñaanal jàmm kontaan si yéen fier si macha allah di nuyu journaliste yi garde corps yi macha allah di nuyu Darou Laye Gambia Mariam Mané mu le may siise macha allah mu le mu le yëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu suñu mbokku taalibe di nuyu macha allah mooy Bintu Yaani Kuni Thiamone Kuni Debeka Samsi Samaru si Muhammad al Mustapha suñu tooma yi mu le mu le yëpp yàlla yokk seen leer seen martaba yàlla bàyyi ñu ak suñu sëriñ ba aljanna firdawsi jàmbar l'islam yi dañu kontaan si yow fier si yow di si njëriñoo sa barke sa yu set yu ñu nag yow ba aljanna firdawsi macha allah di yeesal sama njëbbal si yow macha allah kenn du yaay waliw si biir waliw yi yaay jàmbaar lislam yi yaay borom butu allahu yi borom bintiyaani ko ni càmmooni ko ni dabaka borom samsi samar husi borom jini bàyyi sëriñ saw pulëjër yàlla na yàlla fay sa xol sa humanité sa yërmaan nga yàgga fii lool sans temps sans ordonnance di tuubali nit yi di tuubali jini yi di ñu yóbbu si yàlla ak yonante bi soo bu la jëri amuñu su fay mënuñu la fay xanaa di la sant di la gërëm macha allah fier si yow kontaan si yow fier nekk sa taalibe fier nekk daarullahi international Thierno Moule Sow soo bu la jëri asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku jullit di mbokku taalibe yi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar di jiital si nuyoo bi nag suñu kilifa suñu wasila moom alaaji Thierno Moule Sow di ko ñaanal jàmm taw fexe sutura fan yu gudd bu ànd ak wér gu yaram yal na ko yàlla sàmm sàmm njaboot bi sàmm mboolem jullit macha allah di nuyu yaay Jaratu Mariama Camara prince Moulé madame Sow laa reen bàyyiwuñu kenn famille Moulé Moulé yëpp góor jigéen mag ndaw ñu leen di ziara ah boo leen gisee vidéo bi nag lu dara lu dul jàmm ak salaam rek di di woote suñu woote bu mag boobu macha allah di la mars ñu koy woote di ko woote mbokku yëpp mbokku taalibe yëpp. Afrique ak euh, monde entier bàyyiwuñu kenn Europe international national Gambia bàyyiwuñu kenn daal macha allah bés boobu ñu leen di woo di dugg ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamina di woo mbokk jullit yëpp nag bàyyiwuñu kenn ñëpp catholique ñëpp wax kenn dafa joboote macha allah dafa joboote képp kuy xaritam képp kuy am ni jàmmam